asalaamaaleykum siñ bi tey euh, ñun la waa leeral point net leeral TV dañoo ñëwoon tey fii ci suñ séeréer pour xam si naka ngeen di dundee feebar bi ñuy wax Covid 19 ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi. waaw asalaamaaleykum yéen ñu ngi leen di leen gërëm ci seen teewaay dugg ci biir nit ñi saytu ba xam ñoom nu ñuy dundee feebar bi di Covid 19. fii di leen xamal ne fii suñu suñ séeréer comme ñëpp nañ koy dundee noonu lañu koy dundee. mais li nga seetlu mooy premièrement est-ce que yow gis nga ni takk fii masque wala leneen xam ñu fu ñu koy jëndee buñ ko doon jënd tamit ñun amuñu ñu koy jëndee ndax couvre-feu la ñuy wax kenn liggéeyatul kenn bon di jëm ci wàllu li ñuy wax ku dee ndimbal ak yooyu noonu ah xëy na ñoom ñi nga xam ne ñooy autorité étatique yi nekk ci gox bi xëy na ñoom ñu ngi ciy def seen wàllum ñun gisaguñu dara c'est trop tôt nag ñu wax ne ñun amaguñu wala ñun war nañu amal amaguñu mais nag pour l'instant moom wax dëgg ci Yàlla ñun gisaguñu dara. Euh, ndax yéen a ngi am li li ñuy wax ndox ak courant yu ni mel ndax amoon nañ ci jafe-jafe. waaw courant moom am nañ ko mais suñu problème mooy ndox gaa ñun am nañu ndox parce que ñun ñu branché directement ci réseau bi jëm aéroport mais boo xoolee semaine bi deux wala trois jours yoo xamante ne dinañ ko am coupure de ndox ñun dañu am ndox xaw ma nag lu tax te ñun euh, ñun ñu ngi juste avant aéroport parce que ñun boo xoolee am na benn village bu nekk ci kanam bu ñuy wax Gàpp. ñoom fa la ñoo branché réseau bi jëm aéroport branché leen euh, ravitaillé leen ndox ñun am na forage bu nekk ca kanam fii nii foofu lañ leen foofu lañ ñoo branché mu dem ci château mais nag souvent ñoom dañuy wax ne waa aéroport ñoom dañoo réglé seen appareil de tellement que telle sorte que ñoom bu ñu amee maanaam quantité ndox bi ñu bëgg seen réservoir yi day ab dafa am benn euh, tëjukaay automatique day day day day bloqué circuit bi de ce fait ñun dootuñu am ndox mais boo xoolee semaine bi daal sam ak dimanche la plupart ñun dañu am ndox. jërëjëf ñu lay laaj tey euh, fii ci suun séeréer lan mooy seen jafe-jafe bi nga xam ne dëgg-dëgg mooy urgence boo xam ne ni buñ ko defoon di ngeen mën a feex ñun jafe yi ñu am bëri na ndax ñun fii nii boo xoolee aéroport bi daf ñu impacté autoroute bi daf ñu impacté site de recasement bi daf ñu impacté boo xoolee ba tey ji am na ñoo xamante ne fay ñu leen seen xaalis lu jëm ci seen wàllu euh, aéroport bi. APS bi la même chose site de recasement bële la même chose def nañu ay réclamation ba tey jii gisuñu dara boo xoolee am na perte récolte yu ñu waxoon ne dañ koy fay population ñi nga xamante dañ leen impacté 750 000 francs par année ba tey jii depuis 2007 zéro kon ñu du dañu waroon dimbali ci lu jëm ci wàllu confinement wàllu euh, Covid 19 bii mi dañu waroon fay suñu xaal ñu am lu ñuy dundale suñu waa kër mais nag depuis loolu loolu mënoo ci jot jotagoo ci ndimbal ñu confiner la yow sa kër te nga war a dund dundal sa waa kër te mënoo génni c'est une question. wàllu mbéy mi ndax fi mu toll nii yéen a ngi béy. mbéy moom fii nawet bi nawet la te mbéy mi yëpp boo xoolee maraîchage la mais fii amoon na seko doon nañ béy gerte ak yooyu noonu mais depuis boo xoolee plus de vingt ans dañu considéré comme zone maraîchage béyatuñu gerte béyatuñu dugub. li fi ne lan bisaab ñebbi ak yooyu moom la ñuy béy instant yi nii à part loolu fii amul nawet. fii lan mooy seen marché maanaam lan ngeen di fan ngeen di jëlee li ngeen di dundee bés bu bés bu set. xanaa ci yàlla rek ñun moom ci yàlla rek xëy kërti kërti bi lu yàlla indi nga xam ne yow li nga indi nga dundee kër peut-être bon comme man mii mën naa ne man maçon la man maa ngi takkale sama beneen morom peut-être électricien la moom mu ngi takkale la plupart jeunesse bi mais bu dee fii village bi village bi village bi fii nii yow bi nga fiy duggee gisoo fi dara loo xam ne mën na ci jàpp pour liggéey AIBD bii ñuy wax ni ñu fiy liggéey ci gox bi te dëkk ci dëkk bi mëtuñu cinq personnes APS bi mëtuñu cinq personnes si recasement bi suñuy toll ay nit la ñu jël toxal leen suñu tool ñu leen di jox ay perte de récolte dédommager leen bon vraiment taxawu leen mais nag fii moom franchement parler y a rien lii gënoon yomb sax bu ñu amoon yoon ñu jàpp ci mais amuñu ko waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen tatagal itam ci béréb bi nga xamante ne ñëw ngeen ko te muy suun séeréer gaa man ndaw ilimaan la ilimaan a ngi nii taxaw suñu wet moom alxasan Seck la tudd sama papa nag man Ismaïla Seck laa tudd eh, su fekkee ne dañu bëgg a wax ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dundee fii ci gox gi wax dëgg yàlla metti na lool xëy na ñun nag du ñu mën a tënk lépp wax ko mais dinañ ci tënkalu gàtt surtout lu demee ci côté li nga xamante ne moom la ilimaan gën a farewu mooy côté jiite ak dem jàkke yi wax dëgg yàlla temps yi dañ ñu bloqué complètement lu mat juróomi aljuma ngi ni kenn julliwul juma waxatuma nag waxtu juróom yi waxtu juróom yi ñemewuñu daje foofu ci jàkke yi yii saa da gis ñii bu ñu duggee ñii doog ñëw julli yii saa da ngay gis sax jàkke ji par kenn kenn ngay gis foofu ñemeetuñu daje mbooloo ci biir jàkk yi di fa di fa julli muy benn jafe-jafe beneen jafe-jafe bi wax naa la ko bu njëkk mooy ñàkk dem jumaa ji te fii dafa nekk dëkk boo xam ne dafa enclavé enclavé wu jegewul fenn foo xamante ne tey war nañu mën a jàppale ci lu bëri nee nañu ñu ngi joxe ay masques mais masques yi ñun ci suñu bopp jotuñu ko man personnellement man mi taxaw di wax kii yéen di Ismaïla maa ngi amee sama masque ba cees dama demoon Thiès sama goro mu ngi liggéey ci hôpitalu hôpital régional bu cees moom moo ma jox bi mais su fekkee ne toussement bi ñuy wax ne toussé nañ ko masque yi ci gox-goxaat yi am na ñun fii gisaguñu ko comme gisaguñu ko nag mënaguñ ci wax dara. ñuy laajte nag lan leneen mooy seen jafe-jafe surtout fu mu toll nii. lii suñu jafe-jafe aussi bokk na ci jigéen ñi ñemeetuñu buuse fi mu ne nii ñu lay wax dëgg li ñuy lekk tey tey sa xamatuñu ko ndax ña daan andi ay. ravitaillement lu mel ni ay jën ak yu ni mel pour ñu mën ko di am ñemetuñu ñëw te jigéen ñi mënatuñu jógee koo fii di demati Pout di ko fa jëndi ji surtout bi ñu déggee ne Pout am na kaa tey tey tey dañoo bloqué wu complètement suñu wàllu dundinu diine doxatul suñu wàllu dundinu lekk doxatul ñun daal vraiment dañu dañu bloqué wu. bon jafe-jafe yu métti sax yu méttee métti yoo xam ne peut-être amuñu woon occasion pour jooytu ko pour peut-être kilifa yëg ko. mais wax dëgg yàlla ñi ngi dund lu méttee métti parce que jeunes yi ngay gis nii ci ginnaaw lu ëpp ci ñoom ñi ngi liggéey Dakar ñi ngi liggéey es comme déplacement raison ak raison yi dañ ko tere léegi ñun dañoo obligé nii toog di xoole parce que ñi nga gis nii ñoo yor kër yi demuñu dikkuñu bu fekkente ne nit ki toog maanaam téye nga ko ci këram ne ko bul génn te joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan day metti ci ñun instant bii nii yooyu yooyu jafe-jafe bokk na ci yi nga xam ne moom la ñuy dund léegi nag gis nañ ne fii yéen a ngi dajaloo rassemblement ba pare solu leen masque loo tam lu ko waral. waa xam nga tamit bon masque boo koy def dafay fekk nga tal ko malgré tout wér-gu-yaram baax na mais masque yi boo gisee xaalis lay jar mais nit ki bu fekkee ne ni liggéeyoo mënoo jënd luy jar xaalis nañu waxante dëgg mais nit ki yow bu fekkee ne état daf ñoo téye daf ñoo waroon luy maanaam daf ñoo waroon jox dara lu ñu toogaale ko mais toog leen ci dara. looloo ñu fi téye soxna si mais fii ku ci nekk ku ci nekk rek bu sañoon dina porter masque parce que xam na ne ci wér-gu-yaramam la bokk mais bu fekkee ne dañ la koy jaay aussi bu fekkee amoo xaalis da ngay toog di xoolee. jàkkare rek ak tiitaange ñi ci ñëpp mel noonu lañ ci mel am nañ ci jaax am tiitaange te ba léegi nag ñun gisaguñu dara ki ñu war a dimbali gisaguñ ko. gisaguñ ko lan mooy seen jafe-jafe fi mu toll nii. suñu jafe-jafe bi nekk na problème coonoy àddina. ñàkk liggéeyu xale yi gis ngeen ndaw ñi ak ñàkk lu ñuy dundee am nañu ko ñàkk mooy am nañ ko gis ngeen teen baa ngeen ci la ñuy roote am nañu problème ndox donc amuñu ko faju tamit problème faju am nañ ko tamit waaw yooyu mu ngi ci suñ jafe-jafe ñun nag duñu wax te duñu jàmbat te duñu manifester loolu moo tax kenn duñu duñu xam ñu ngi nii jóge tout près aéroport jóge tout près Ndakaaru mais kenn ñu xam am amuñu daal ku ñuy waxal am ñu ku ñuy jàmbatoo am ñu ku ñuy jooytootu moo tax bi nga ñëw fi te ñu am ci kontaan ak mbégte di leen ci sant di leen ci gërëm waaw lii nag bañ mënuñ jottali nag ca ña ca kaw ñu yëg ko xam ne nag waa suñ séeréer ñu ngi fii kenn gën leen sonn ci senegal kenn gën leen jaaxle kenn gën leen tiit mais nag amuñu pexe amuñu moyen amuñu fuñ koy jooy amuñu fuñ koy jàmbate ba yàlla andi leen fi bisub tey gii ah yéen ñu ci sant di leen ci gërëm jërëjëf lan mooy seen euh, mbëbët lan ngeen bëgg nga xam ne lii bëgg ngeen ko wax gouvernement bi tey ñu jàppale leen ni benn ñun am nañ problème yoon amuñu yoon xam nga fa leen jaar bi egsi fi yoon amuñu ko ñu ngi fi ak tout près pour amuñu ko de deux problème ndox am nañ ko bu ñu amee ndox benn fan bala ñu ko amaat ñetti fan ñeenti fan problème facture bi sax dafa ñuy coûter cher lekk-lekk day mu ñëw ci ñun duñu am lu ñuy fayee mais da nga fan def ci dem ci sa mbokk mu am lu ma lebal nga dem fayee ci sa ndox am lu ay ndox nag muy problème compteur ndox dafa diis ci ñun waaw ba da nga am na ñàkk nañ ci pexe lool waaw ñaata la trois cent la ñu koy fayee fi benn benn benn chaque weer nga war a fay xamante ne amul salaire liggéeyuñu de amuñu benn salaire liggéeyuñu fenn lu muy faraatu